Oumar Ben Sokhna maa ngi lay nuyu. oui maa ngi nga nekk euh, secrétaire euh, général bu syndicat des travailleurs du nettoiement euh, du Sénégal délégué régional Diourbel Touba bu Sonaget tey jii ñu lay laaj jafe-jafe yan ngeen am yéen liggéeykat yi nekk ci nettoiement bi. donc euh, man maa ngi jiite xëy ñu am surtout si jafe-jafe ko koppar la par rapport ak euh, augmentation de salaire yi nga xam ne depuis deux mille vingt état mi ngi koy def pour soulager population yi ci tension bi nga xam ne mi ngi am au niveau social donc nag ñu premier mai bi mu jotee plateforme revendicative bi ñu njëkkoon bi wooyu moom mooy li jëm ci wàllum euh, augmentation de salaire yi li jëm ci wàllum faju liggéeykat yi jëm ci wàllum logement social yi nga xam ne état bi ñu koy jox te jàpp nañ ñu kenn gën ñu ko yellool mais tamit lu jëm ci régulariser suñu personnel bi nga xam ne ñu ngi fi nekk di liggéey ay at ñu jox leen ay ndombal tànk yoo xam ni ñoom amuñu ko ci këyit mais ñu bëgg tey jii ñu régulariser leen parce que par rapport ak population personnel bi ni mu yokkoo ak yeneen lu jëm ci nag ci wàllum augmentation salaire bi dañu gis ni depuis deux mille vingt état du Sénégal yokk na fi salaire yi lu toll juróomi yoon bu mujj bi mooy le premier mai bi mooy SMIC bi yokk nañ ko de deux virgule deux pour cent mais yokkute yooyu yëpp buy ñëw daawul laal les travailleurs du nettoiement li tax daaw leen laal mooy amuñu woon statut du ñu xam ndax ci privé bi lañ bokk du ñu xam tey ndax euh, ci ci ci public bi lañu bokk mais tey bu ñu créé SONAGED bi ba am société ba mu am. Euh, valeur juridique mu nekk société nationale donc tey jii ñun tamit dañuy taxaw comme tous les travailleurs demander augmentation de salaire yooyu noonu pour mu yegg si ñun na nag biir premier mai bi bu suñu ay revendication li jëm ci wàllum santé bi mooy tey jii ñu doon kaas pour am IPM loolu nag xeex nañ ko depuis presque dix ans tey jii mën nañ leen rek ci la ko yàlla dogal mooy am nañ benn société nationale benn société bi ñuy wax trans bi di jëm jëm ci jublu yàlla faj société boobu noonu tey jii dina ñëw pour euh, ñu am benn contrat lundi la ñuy def lancement bi pour que tous les travailleurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Sonaged ñoom ñëpp dinañ leen mun a jël en charge ñoom ak seen ay njaboot lu toll juróom benn nit parce que ñoom lu ñuy tuddee IPM donc loolu noonu dinañ ko lancer lundi mais dina jël tous journalier comme prestataire comme permanent ñëpp dinañ leen jël ci biir euh, activité yooyu léegi tamit li jëm ci wàllum yokkute bi waxtaan nañ ci ba de d'administration bi war na réunir ci fan yi pour grille bi nga xam ni moom la ñu votalee salaire wu agent Sonaged bi ñu revoir ko pour ko liggéeykat yi yëpp mën a gis seen bopp ci loolu donc loolu dañ koy rafetlu di xaar tamit mu gën a am ay yokkute lu jëm ci wàllum logement social ñun amoon nañu coopérative d'habitat boo xam ne ñu ngi ci doon liggéey mais dañuy xaar ay logement yooyu président di joxe ñu xam ne ñun liggéeykat nettoiement yi kenn gënuñ koo mérité parce que ñu ngi nekk ci ministère bi koy joxe mais ba tey jii gisuñu suñu bopp donc yooyu mooy les principal problème yi nga xam ne moom la liggéeykat nettoiement bi di te ñu bëgg ñu taxaw si ci ñu gën a gaawee. waaw kon loolu waaw loo dañuy sant yàlla nag ba ñu nekk ci UCG wala ba ñu nekk ci Kadakar su ma delluwaatee ci gannaaw mu gën a sori mooy bëri woon na ay jafe-jafe mais tamit bëri woon na tamit ay manquement yoo xam ni moo nekkoon ci condition de travail yooyu ñu ngi di liggéey mais tey képp koo xam ne yaa ngi Sénégal xam nga ni tey ji lu jëm ci wàllum gestion des déchets am na avancement bu bëri boobu tamit ñu ngi ci remercier suñu directeur général mais tamit dañu ne doyul mooy depuis deux mille vingt bu ñu amee suñu directeur général bi ñuy tuddee Mass Thiam bi mu ñëwee ubbiwaat nañ dialogue sociale bi toogaat bi waxtaan ak liggéeykat yi ànd ak moom pour ñu réorganiser waat kër gi donc tamit personnel boobu noonu nekkoon fi te ñu jàppoon ni dafa néewoon jóge deux mille cinq cent dem na ci quatorze mille cinq cent te am nañ yaakaar ci peu de temps bi dañ ko yokk yóbbu ko ba mille personnes jàpp dix huit mille agents à travers tout le Sénégal donc ñuñu noonu ñu def muy matériel bi ñu daan liggéey sooxee nga xam ne daan xëy di ko yi nga xam ne tamit moom la liggéeykat daan sol nga xam ne suñ ko ñu gisoon dañu daan yërëm doo ko xam ne yooyu tey ci am na ay amélioration yu doy mooy ñu ngi joxe tenue yu doy ñu ngi joxe matériel yu doy mais tamit matériel bi nga moom moo ñuy accompagner ñu ngi ko tuddee le mobilier urbain tey jii ñu ngi def création di def ay point de propreté pour que ñu ngi mën di génn ci def ay points de regroupement normalisé lu mel ni tey décharge yi nga nekk ci biir Sénégal commencé nañ ko di leen réhabilité lu mel ni décharge di Mbaxoss état dugal na ci lu ëpp trois cent et quelques milliards pour que réhabilité def ko un centre d'enfouissement technique c'est-à-dire tey jii ñu nekk foofu ñu amélioré surtout ñu impliqué li ñuy def. loolu nag moo ñu manqué woon moo taxoon liste yi bëri woon na tey jii cadre bi ñu doon toog di waxtaan entre état ak syndicat yi euh, état ak syndicat wala direction ak syndicat manqué woon na parce que par parlo moo ci bëri woon ñu doon wax ak wax ak ñeneen tey loolu dañ def donc ba defee fàttali nii feet dina dem le premier mai jot na ñu dugalee tamit suñu plateforme le premier mai ak léegi soo xoolee dix jours moo si jàll mais balaa semaine bi di jeex répondre nañu ci problème majeur mooy faju bi ñun ak suñu njaboot parce que xam nañ képp kuy liggéey ci mbalit am nga problème de santé publique yooyu noonu tey ñu ngi koy jël en compte lu jëm ci wàllum augmentation salaire yi waxtaan nañ ko ba su yàggul dara dinañ ko dugal mais tamit dañuy jàpp ne duñ ko doy donc kër gi noonu la mais tamit agent yi nga xam dañ ko daan liggéey ñu leen di jox yenn charge de travail yoo xam ne dépassé na seen niveau yi nekk dañuy demander à ce que ñoom leen bu ko defee ñoom tamit ñu am ay note de service yu valable donc yooyu yëpp nag bu ñëwee tegu ci biir liggéeykaay yi dina tax lu am lu ma apaisé moo tax déggatuñu grève yu bëri déggatuñu coow yu bëri terewul ni am nañu amuñu am am nañu ay ñu ngi koy waxtaanee ci trouver loolu ay loolu nag dañ ciy remercier ki xam ne tey moo jiite kër nga xam ne ubbi na ay buntam tëjuñu ko te ñu ngi waxtaane boobu ba léegi loolu moo tax tey situation bi mën a apaisé wu mais terewul tamit dinañ kën a taxaw vigilant pour que problème liggéeykat yooyu ñu gën cee taxaw pour ñu mën ko régler. Euh, Omar léegi waxatuñ UCG Sonaged la ñuy wax lan moo changé ak Sonaged lan la apporté loo xam ni UCG defu ko woon. waaw UCG benn structure de transition bu état créé woon la en 2011 pour ñu waroon dem ci benn société bu ñuy tuddee so Soprosen mais après bu mu amee changement de régime euh, son excellence monsieur le président Macky Sall bi ñu ñëwee ñu Soprosen boobu ñu dissoudre ko. ñu bàyyi UCG continuer mu nekkoon benn structure de coordination boo xam ne daf yoo kon pour gérer mbalit bi en attendant ñu trouver une meilleure solution léegi nag bi at di dox ba ñu changer les textes yu jëm ci wàllum gestion de déchets yu jëm ci wàllum nettoiement évolution boobu moo dem ba tey jii ñu créé société nationale bu ñu tuddee SONAGED mooy société nationale de gestion des déchets société nationale boobu lépp lu jëm ci wàllum mbalit tey ci biir Sénégal moo koy gérer donc ci gestion boobu noonu société boobu tey yi tamit dañu am xam ne moo leen di régir di ko amee mais il faut que ñu rappelle que ne société privée boobu état mooy détenir toutes les parts actuellement xam naa suñ demee tuuti ci kanam dina am ouverture de capital pour que yeneen société yu mag war a mun ñëw participer ci pour la gestion et la transformation bi nga xam ne moom la ñu war a def ci wàllu mbalit mi société boobu tey jii tamit moo moo ëmb li ñu tuddee Promojet bi nga xam ne tey jii moo war a defaraat décharge yi nekk ci à travers le Sénégal surtout décharge bi nga xam ne moo gënoon posé problème ci Sénégal muy décharge de Mbëbës tey travaux yi commencé nañu pour ñu defar ko def ko centre d'enfouissement technique mais tamit dañu yemuñu foofu mooy tey bu ñu duggee tamit ci biir région yi am na euh, ay CICD yoo xam ne tabax nañ ko lu mel ni Touba lu mel ni Tivaouane lu mel ni Kaolack ñu fi def ay centre yoo xam ne d' intégration et de valorisation des déchets pour ñu mën fa def traitement traitement de déchets boobu dina dem ci wàllum compostage dina dem ci wàllum industrialisation dina dem ci wàllum lépp loo xam ne dañ koy def pour jumtukaay pour traiter déchets yi ñu def ko foofu mais loolu tey jii dina nekk njëriñu Sénégal mais dina nekk tamit njëriñu liggéeykat yi ndax tamit ubbi nañu tamit euh, cartage bi te tey jii commencé nañ lu mel ni euh, collecte privé mooy ay entreprise yoo xam ne dañ ko nekk ñu leen daan jëlee seen mbalit daaw ñoon fay tey yooyu yëpp ubbi nañ ko recette yooyu noonu dina dellusiwaat ci kër gi mais dinañ ko partager surtout tamit ak liggéeykat yi pour que yenn projet yi nga xam ne dañ ko amoon pour liggéeykat yi ñu mën nañ ci accompagner donc euh, yooyu yëpp. Mhm. dafay participer tey jii pour apaisement climat social bi mais tamit dafay participer pour que ñu professionnaliser le système du nettoiement ñu jóge ci amateurisme bi ñu nekkoon yooyu tamit moo tax tey jii Sonaged ñu ñëw teg ko mu nekk société nationale am conseil d'administration ba pare amaale direction générale. kon euh, Sonaged euh, dafay intervenir léegi ci ci région yëpp comme ni mu intervenir à Dakar. waaw d' accord léegi SONAGED dina intervenir ci région yëpp du Sénégal actuellement tey boo demee Ziguinchor boo demee Matam boo demee Podor boo demee Tamba boo demee Saint-Louis fépp foo dugg ci Sénégal di nga fa fekk ay agent wu SONAGED yuy liggéey pour que ñu defar dëkk bi mu gën a naam nag mi ngi am fu muy sooxee parce que bi ñu ko commencé léegi yàggul mais ñu ngi gën a dugg ci biir dinañ dem tamit ci les communes les plus reculées du Sénégal pour que ñu installer foofu des agents pour que ñu mën a jël en charge la gestion boobu ñu bi nga ne moo war a yor wàllum faj pour que agent yooyu ñu mu leen a jël benn centre médico social boo xam ne dinañ fa am suñu médecin tant bi dina fa nekk dinañ fa jël ay infirmiers dinañ fa jël ay analystes ak ñoo xam ne ñu defar lépp pour que liggéeykat bi mën leen jël en charge yooyu nag dafa nekk une revendication yoo xam ne dañ cee sonnoon di ci lutter depuis plus de dix ans yàlla léegi la koy doog a sotti ci sant yàlla ñu ciy remercier suñu direction ci kobal bi mais jàpp nañu tamit du doy ñu ngi xaar salaire yi ñu mun ko yokk ba liggéeykat yi sant seen bopp mais ñu ngi xaar tamit condition de travail bi gën ko améliorer ci wàllum équipement ci wàllu moyen de locomotion ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dugal nañ ko suñu plateforme boo xam ne ci fan yi ñëw dinañu ubbi direct de euh, négociation ak direction bi pour que ñu mën ko mottali te lépp mu nekk njëriñu li ekati mais tamit mu nekk njëriñu Sénégal. Euh, dernière question rek Oumar gis nañ ne même bu Sonaged di def liggéey bu rafet euh, Dakar des na sept régions yi des na sept tey jii qu'est-ce qu'il faut exactement pour Dakar gën a mën a set. waaw li ñuy soxla pour Dakar gën a mën a set. mooy état gën ñoo accompagner ci acte civisme yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci population yi ñu xam ban heure la ñu war a génnee seen mbalit ban heure la ko war a mën a tuur mais surtout état yokk moyens yi soit nag certes yokk nañu budget bi mooy budget mbalit en deux mille douze ñu nekkoon ci douze milliards ba deux mille dix neuf deux mille vingt dem nañ ba dix sept ba dix mais ren bi avec euh, budget SONAGED état joxe na trente milliards mais jàpp nañ trente milliards yooyu pour mu jël gestion à déchets bi yëpp en compte des na parce que population personnelle bi yokku na on est de deux mille cinq cent à quatorze mille cinq cent te salaire yi tey doon fay deux mille douze tey kenn mënu ko ba fay ci deux mille vingt trois donc bu ñu yokkee salaire yooyu dugg ci région yi laaj nañ ubbi capital Sonaged mais suñu ubbi capital Sonaged li liggéeykat yi nga xam ne ñoo fi nekkoon di ko liggéey dara du a nekk ay bu ko defee suba yeneen résultat yi génn ñu mun ko bokk donc état bi fi ñu koy xaaraatee mooy ñu yokk budget yi mais tamit mu renforcer tamit personnel bi mais tamit les mesures d'accompagnement mooy la police la gendarmerie et autres ak euh, ñi nga xam ne tey jii ñun éducation nationale la ñu gën a mën a sensibiliser population yi pour ñu xam lu ñu war a seen ay dese pour que dëkk bi yëpp mën ko jëriñoo mais surtout ñun ñu ciy liggéey ñu gën am ay protection yu doy donc yooyu yëpp bu ko renforcer jàpp naa ne dëkk bi ñu gën a set émergence bi ñuy wax ñu ko def te jaaruñu ci tey ci wàllum cet boobu cet nag ñun am nañ ci wàllu bu doy mais ñun voilà Oumar Bène Sokhna maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi surtout. fàttali ni yow yaay secretaire général bu syndicat des travailleurs du nettoiement du Sénégal nekk itam délégué régional Diourbel Touba bu Sonaged Diourbel Touba bu Sonaged.